jërëjëf Diar maam naka mu. sant bu baax a baax a baax a baax. alors euh, am nga jàmm ñu ngi lay siyaar bu baax di la nuyu yow day fi may door ak yow waxtaan bi rek mooy wax dëgg yàlla sa ay naataango wala sa ay xarit tey bi nga xëyee donc jot nga ci ñoom ay message jàmmaarloo bi fa amoon ci fàttali yow euh, jot nga def prison jot nga fa def dix ans donc mais ci dix ans yooyu am na ci année yoo xamante ne bi tëdd nga ko foofu ci campénal ñaata at la. Campena def naa fa quatre ans six mois. quatre ans dix mois. six mois. ok quatre ans six mois donc boo fa defee ah. quatre ans six mois tey ñu xëy gis li nga xamante ne bii moo fa am est-ce que lu jaadu la wala lu fa yàgg am la. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf merci. waaw man maa ngi tudd la saw hmm. dëkk dëkk Télé bees quoi. Hmm, Pikine. ah Campena moom lu ñu fa dund métti na métti waaye ba nga xam ne bañ fay ñëw convoi. doyoon na waar trop trop trop. Mhm. waaw ba ñu ba ñu jógee ba ñu jógee cent ñëw campé naa ndox moo fa gënoon doon musiba mu ndox. ndox ndox bu naan. waaw. amul woon ndox bu naan nag loo sangoo bay fóot. boobu boobu directeur bi Daouda Diop la tuddoon. moo nekkoon directeur bu mag bi quoi Daouda Diop. mais da nga bëgg wax ne ndox am foo woon c'est-à-dire robinet yi daawuñu xelli wala nu mu demee noonu Ismaïla. non robinet robinet robinet pour mu xelli fa problème la dañ fay ñëw ndox amu fa woon dañ doon ran ran ay bidon vingt. waaw diggante poste police poste police ba terrain ba dañ doon ran ay bidon ay dóorante xeex lépp pour ndox pour ñu am ndox mhm. buñ naan. oh waaw man sangoo naa fa un litre ndox un litre. allahu akbar un litre ndox campé naa. bañ fay ñëw sangoo naa ko un litre. waaw. fóot bi fóot bi xam nga nan la doon demee fóot pour nga fóot. waaw. man bu ma bu ma amee ndox. Mhm. bu ma fóotee ba pare keneen day topp sama ginnaaw. fóot. daal di fóot keneen fóot ci say suuf quatre rang ci benn ndox quatre personnes. waaw. wala wala ndox mi taa si digg terrain bi terrain basket dëgg la am na foofu lañ doon tànkee ndox pour fóot. ah waaw xam kon foofu am na jafe-jafe. dëgg la dëgg la. waaye yàlla dimbali ñu ñu jóge woon cent mètres rek ay bañkat dafa nekkoon. Mhm. waaye dañ doon xeex guddi xeex bëccëg pour ndox mi ñëw waaye daaw la Diop def si lu am solo. def si lu am solo man lu xam ma jaaxal si pénitence. waaw. boo ñu xamee yow liggéey kan nga dañ la fay jëlee. Daouda Diop moo fa indi ndox indi ndox robine yi di tijjeeku colonel bi moo fa indi woon ndox daaw Daouda Diop colonel Daouda Diop. mais foofu amoon problème mu ndox de moom xanaa lekk moom waxaale wuñ ko moom problème mu lekk. loolu côté lañ ko tegee laa la wax man jour bu ma jour bu ma njëkk ñëw ne campé man sama àdduna dafa tukki. te boobu yaa ngi jóge cent mètres. yaakaar ne moo tax te tamit moo gën a moo gën a metti foofu te ndox du fa manqué. dëgg la. waaye Liberté 6 dégg naa nag foofu problème ndox dafa yàgg am. dëgg la. waaw waaye loolu yàlla defal ñu jàmm ba ndox mi daaw di Diop def ci ay jéego yu metti ba ndox am fa léegi. d'accord relation yi péni euh, pénitentiaire di am euh, garde pénitentiaire yi ak détenu yi cest à ñoom du ñu nekk ay xarit ci biir kaso bi. waaw xam nga nit ki moom foo dem fu ne rek. di gis ku baax di nga gis si bon si mm-hmm. comme détenu bi nu muy bone mm-hmm. garde bi noonu lay bonee. Mm-hmm. ndax lu xew si biti moo xew si biir kaso bi. d'accord waaw. comme lu ñuy aaye moom lu ñuy aaye moom détenu bi demul fenn xam nga détenu bi dañ ko jàpp. dëgg la génnul détenu demul fenn. détenu bi dafa toog waaye tamit am na garde ya nga xam ne seen salaire demewul noonu. dëgg la mun nga nekk ak détenu bi waxtaan ak moom détenu bi wax la ah man de bëgg naa lii bu ma ko amoon moom du ma koy jëfandikoo détenu bi lu mu amul si biir bu ko amee si biir da koy jëfandikoo. Hmm. kon boobu ñoom waa garde yi. Hmm. garde yi ñoo war a mën a may jàmm détenu yi. ndax at déggoo fa bu mais li fa am ni ay visite dugg ci chambre yi visiter leen yooyu dafa daan am d'habitude jékki-jékki dugg ci. chambre bi dafa doon fouillage fouillage moom. kaso dafay am fouillage ak kaso ñoo ànd. ok waaye fouillage fouillage am na ñoo garde man cent mètres cent dafay am waaye yàq yenn yàq yi du fa am. Mhm. waaye ñoom buñ duggee ci biir détention bi puye de buñ fa fekkee café dañ koy tuur buñ fa fekkee suukar dañ koy tuur buñ fa fekkee cere dañ koy tuur. ay eh, waaye Ndaw Samb lu tax loolu. pour pour léegi mooy détenu bi day ragal wax ak ak yelleefam ndeysaan ndax sa waajur ñu la dajaleel weer ba weer dajaleel la suukar café lépp indi la mm-hmm. ah mm-hmm. léegi yow yow garde bi fuyaas benn nit am fa téléphone yow fuyaas yow wax nañ la benn nit boobu am na téléphone boo duggee dem nga placé fuye ko fekkoo fa dara bu yàq lu lu détenu bu am quoi waaye yow renseigné ngay def détenu bi mooy yàq bagage am dafa gaspillé bagage nga xam ne dootu ko amaat foofu te dafa metti dajale bi si biti dafa metti de. yow yàgg nga fi dix nga fa def mës nga gis nit bu yor téléphone. gis mës nga gis prisonnier bu yor téléphone ci biir. non loolu du benn du ñaar. du benn du ñaar waaye détenu bi demul fenn laa la wax détenu bi fu mu nekk la nekk. buusewul. waaye tamit garde yi yow mënuñu laa tëj vingt ans perpète ñu tëj la perpète. ok nga gis téléphone est doo woote. wallaay ndeysaan vingt ans. di nga woote. Mhm. nga gis dañuy tere si kaso foog nga def ko. dëgg la. ndax man yàgg naa xeex loolu ba ma génne ba léegi maa ngi xeex loolu. ndax munoo munoo def quinze ans si kaso. seize ans si kaso. dix-sept ans si kaso. te amoo benn sens buñ la may. du réer conditionnel du appel du dara am na nga xam ne cour d'assises leneen atte est-ce que cour am na cour d'assises amatul mhm. am na ña nga xam ne ñooñu fa 17 ans ñi 16 ans ñii 15 ans. ñii seen jabar dem nañ. yow xam nga ni xam nga ni di fa tëdd 17 ans. est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. mel ni ay Abba. Ah? Ismaïla da xam ay nit yu fa tëdd 17 ans. yu bëre bëre bëre bëre ñii 10 ans ñii 11 ans ñii 13 ans mën naa la limal ay tur. est-ce ku ci mel ni Abbas Diallo mu ngi mu ngi si 16 15 ans moom instant bi. Abbas Diallo li ñu doon way ba léegi génnagul. ba léegi cour d'assises lañ ko àtte. ku si mel ni Matar Dia. waaw. alliance PIF. waaw. def na fa instant bi seize moom tamit. seize waaw am na ka nga xam ne Abou Sow. def na fa douze ans. ok. ku si mel ni Kayra Ndiaye. Kayra Ndiaye. instant waaw moo Papa Boy Djiné ñoo bokkoon problème. waaw. Ah. te bu muy dugg mineur la xamul dara. ok. instant bi mooy si treize ans. ok. waaw. Mhm. bëri na bëri na ay ñam laat ñoo ñëpp ñoo ngi si biir Mbaye Fall ka nga xam ne xale la bañ koy àtte moom mineur la woon mhm. instant bi mooy si dix-sept ans am xamul dara si lépp kaso la ko xam ne te parents bi ñooy ay grand pako ay pako ñoo ñëpp pako instant bi mooy si dix-huit ans ay Njaga Matar Gueye ay Njaga Njaga Matar Gueye ñoo ñëpp ñoo ngi foofu waaw. bëri na ay ñoom cele gars yooyu Mansour Diop ñoo ngi foofu. ah affaire yi lenn kese la ñoom lenn la ñuy xeex ñoom. Hmm. ñu ñu àtte woon cour d'assises. Hmm. ñu ne leen carrément seen dossier dafa réer ku dossier am réer waroo ko téye kaso. d'accord. seen dossier moo réer. réer na bàyyi leen ñii def nañ quinze ans ñii seize ans ñii bàyyi leen may leen sens. ndax ñoom mënuñoo bokk ci garage mënuñu bokk ci dara ndax appel lañ def mooy lu ma àtte nanguwuma ko hmm. léegi yow kooku dem nga ba benn instant nga ne ko say kayit say dossier moo réer léegi ngir yàlla ak yonent du doo leen ko bax mm-hmm. mu seeti leneen ngeen may ko sens mu xooli leneen. parce que bi ñu leen àttee dañ leen a tëj ay vingt ay perpète perpète waaw ok dawal nañ ñii dawal nañ dix huit ans ñii seize ans ñii dix sept ans may leen sens lu si def seen kayit réer na may leen sens am na ka nga xam ne Abdou Diouf a ngi foofu dix lañ ko tëjoon ñu jàppee ko la nga xam ne lu ñuy tere ñu chargé ay dossiers yow tëjaat ko beneen dix ans. muy vingt ans. loolu loolu mooy lan. naa xam nga lan moo fa am yokk kaso sa kaso dañ koy yokk. Hmm. ñoom dañuy yokk kasu li te loolu du yoon. te ñun ñun lenn rek lañu am. Hmm. mooy wax. Hmm. carrément ñi fa nekk ay jàmbaar ay nangu ay jàmbaar lañ nit ki jafe-jafe mënul ñàkk ci doomu aadama mhm. waaye boo nekk ci jafe-jafe ba génn da ngay xam fooy teg sa tànk xam mhm. responsabilité bu nga yor mhm. te ñii ma tudd ñii ñëpp ay responsabilité lañ jàng xasida lañ xam entraînement xamuñu leneen lu dul loolu ñooñu boo leen mayee chance ah. dañuy xam ne carrément dañ leen may chance Ismaïla yow fukki at lañ la tëjoon fukki atu kaso def nga def nga fukki at yu yu mat sëkk ci kaso bi euh, te rayoo man reyu ma nit reyaanu ma nit tàcc ma fenu ma lañ ma toppe woon. d'accord. waaw ñu tëj ma tëj ma dix maanaam jaay saafara indien. lañ ma toppe woon. Mhm. waaye yàlla dimbali ma suturaal ma. Mhm. ma tëdd ko ci ngor ak fulaak fayra génn. nekk sama liggéey. dama xam ne ndog-ndog mënul ñàkk ci doomu aadama. wax nga ne li la gën a metti ci kaso bi mooy bi nga génnee fekk sa wayjur bi nga yaakaaroon noppalu génn àdduna sa ginnaaw gën a metti xamul lan moo ma gën a metti Kamberene mhm. sa waajur bu génnee àdduna mhm. ah ñu wax la ko yow social lan mooy social mhm. social dala war a woo nga woote waaye man sama waajur génn na àdduna man dem wax ko jóorin ka nga xam ne boulangerie lay liggéeyam mu wax ko maire social bi ma ñëw pour wax leen ko pour ñu wooteel ma ñenaan naan ma xaaral ba étranger yi woote ba pare. man ma gedd. ne leen woote ma dem sama yoon dugg ci télécentre wax samay soxla génne dem sama yoon ñu may woowaat ma ne leen mënumaa ñëw waaye sama mbokk taalibe moo ma woo na ma demal rek demal. te loolu est-ce la étranger bi gën la fi am droit yow si sa dëkk. Ah, campagne lu fa am kenn mënu ko wax ci àdduna. Mm-hmm. kenn kenn. ndax gars yi lu ñuy dund dafa metti dund bi lenn kese la mooy ñu may leen saas wala ñu ne leen carrément àtte nañ leen lii tëj nañ leen li lii ñu xam li ñuy dawal waaye nit ki nga tëj ko perpète ah mu def cour def dix-sept ans seize ans munoo ko fexe fexe fexe ba woo wala munoo ko fexe fexe ba noo ko yow say dossier kañ na am na ñoo nga xam def nañ appel dem nañ ba désistement def nañ appel ne nañ bëggatuñ def appel bi nga woo leen ne leen seen appel dañ na ñu am ay sens yeneen sens. Mhm. waaw waaye mu ñu am benn sens mënuñu am benn sens ba nga xam ne ah dina leen wàññil dara wala ñu wàññil leen dara sax ñuy dundee yaakaar waaye nit ki nekk fa xale ba mag xamul dara mineur ba majeur xamoo dara lépp kaso nga ko xamee kooku yow nga war ko mën a récupérer dimbali ko si société bi. Mhm. ah. Mhm. tey kooku noonu bu bu génne man ba may jàpp man mineur la. waaye damaa xam lu ma bëgg moo tax ma ba ma génnee xam si lu ma nekk. di Dóor waar xam ne yenn yi mbirum àdduna la woon rek. mais yow jotoon noo nekk sax chef de chambre foofu noonu soit ci camp pénal wala ci rëbës mais en tant que chef de chambre tey war nga mën a xam li nekk ci biir chambre bi chef de chambre yi xam nañ ndax chambre bu dee am na yàmba wala bu dee am na ku fi am yu téléphone am am déet wala dafa am complicité aussi. non man chef de chambre def naa chef de chambre quatre ans. Mhm. bu ma ah néeg bu ma yoroon mhm. bépp defkatu ñaawtee foofu lañ lay indi néeg boobu moo gënoon garaaw cent mètres mooy ban chambre la trente et un ok néeg bu ndaw waaye néeg bu nga xam ne ñëpp ku am ku def connerie foofu lañ lay indi ñaata nit dafa daan nekk ñaata nit dafa daan nekk par exemple bu tàngoor gi nii quatre quinze personnes dafay nekk tàngoor waaw man dem naa ba yor quatre vingt quinze personnes ci benn néeg pantrain allahu waaye waaye tamit ay nit boo nekk ak ñoom yow nga doon chef de chambre bu nekk nekk chef de bu nga doon doonoo garde de chef de chambre nga yow détenu nga waaye am na chef de chambre nga xam ne dañuy dem ba doon ñoom garde la ñuy doon dëgg yow boo jàppee sa bopp garde rek après yow détenu yaa détenu da ngay da ngay sonn xamul da ngay sonn mm-hmm. ndax détenu bu wax nga yóbbu poste détenu bu def nga yóbbu poste mm-hmm. da ngay dem ba jàppee sa bopp yow garde mm-hmm. man ba ma nekkee foofu doon chef de chambre yàlla suturaal na ma ba ma nekkee chambre chef de chambre ñëpp ku fi dafa ñëw dama lay jàppee comme sama bopp jàppee la natt moo la indi si kaso bi d'accord boo jàppee loolu rek après yan bi doy oyof yaa ñoom donc bu fekkee ne am na ay yamba wala ay téléphone ak yooyu xaj na chef de chambre yi ñoo ko signalé garde yi te voilà noonu lay demee def da saabu moo lay signalé garde ne diw yor na téléphone. Hmm. ndax bëgg yor néeg. ah ok. ndax pour pour yor néeg nga am benn faveur si kaso bi fekk loolu faveur boobu kaso du dara. Ah, yàgg yàgg da di ñibbi. wallaay faveur baaxul. baaxul waaye man ba ma fa nekkee nit bu yoree lu ñu tere dama la naan ah tag ah bañ may joxe néeg bi te ba cour bi nee na bëggul yàmbaa bëggul téléphone. buggul xe buggul yàmbaa buggul téléphone man man nag maa si yokk bugguma néeg bi xeex bugguma fi affaire góor jigéen mun naa tolloon lépp ba mu def xeex ak affaire góor jigéen. ça veut dire góor jigéen daf doon am parfois ci yenn chambre yi. waaw. waaw. ndax dafa déggoo ma boo amul sa ngor ak sa dignité. Mhm. di nga def la nga xam ne waroo ko def. nit ki bu yoree lu ñuy tere yow boo dee chef de nit bu yoree lu ñuy tere. yow war nga mën a naxanteeg moom naxanteeg moom ba mu bàyyi lu lu ñuy tereel mm-hmm. ndax nit nit rek la mën a doon. dëgg ndax yow mën nga ko mën nga koo conseil man yàgg campana yàgg nañ fa jàppee lit affaire ay affaire mm-hmm. waaye damay dem ba chef de kuur bi ne ko ah carrément nit ki waroo warul nekk ci benn affaire rek nga jël ko rek yóbbu ko si liir wala nga defeere ko war nga mën a waxtaan ak moom wow ko waxtaan ak moom. xel mu sell. d' accord en tant que ji. alors Ismaïla la maintenant sa euh, booy yi nga xamante ne bi ñoo xëy woo la tey téléphone ne la lañ doon kii ñu ngi ñu ngi wax naan garde yi dañu tiire nit bal ñu naan dee naam deewul mais effectivement am nañ ay confirmation ne euh, dee amu fa mais xeex bi metti woon na quand même en tout cas ban message lay lancé daal wax dëgg yàlla ci xeex boobu nga xamante ne bi xewoon na am campagne xeex bi moom dégg naa xeex bi metti na trop ba gars yi di dóor ay bal balaa instant bi bëgg naa contact ak moom laaj leen ndax dee dafa am wala amul. ndax message booy laaj booy envoyé rek. da na doon lu leer ko non amul dee amul sax. waaw d'après gëstu yu ñu am dee amul mais quand am na ay euh, bal yu ñu doon tiiree. waaw ndax man bañ fa nekkee ñun ñun bañ fa nekkee grève nañ grève ba nga xam ne gars yi dóor nañ fa ay bal def nañ lépp. ndeysaan. waaw def nañ fa grève une semaine lekk dugul dara dugul ñu tëj ñu si néeg yi rek. këpp seen i café këpp seen i cere yoratuñ dara si léegi. d' accord loolu yëpp dund yëpp lépp dund nañ ko. Ismaël damay tàggatoo yow mais xam naa fi may tàggatoo ak yow en attendant suba ñu koy yeggali mooy wax dëgg yàlla yow daal bi nga tëddee dix ans ci kaso bi euh, fukki at yooyu nga tëdd ci ban année. maanaam ci ci ban année lañu lañu la ñu la annoncé ne sa waajur bi nga dese woon génn na àdduna maanaam bi ngay tëdd 9 ans la wala bi ngay tëdd 7 ans. waaw ah, man instant boobu sept ans ay six mois lu may defee ndax man surprise laa ko bëggoon defar quoi pour waxuma ko jour bu may ñibbi surprise laa ko bëggoon wax ndax am na ba ma nekk campagne chef de camp bu fa nekkoon dañ doon waxtaan mu ne ma doo woo sa nit ki wax ko ma ko non surprise laa ko bëgg a defal après man moom moo ma woo ne ma tey sa yaay bu ndaw génn na àdduna ma am lu ma metti trop ma ne ko non loolu ak àdduna ñoo ànd mbirum àdduna la ndax suñu boro moom moo ñu fi wàccee bu yóbbu nit ki du ko tàggu ma ne ko nañuy sant yàlla rek waaye moom moom mi xam ne moom laa gën a bëgg ñu tàggeewaat ma ko. ma xam lu ma métti trop trop trop trop si biir kaso bi. sant yàlla xam ne jaam day nangu dogal. te moom musul a sa te moom musul a seet si yow fekk. musuma seet si. nan moo taxoon musul seet si da doon da doon wax ni moom mënul jàkkaaroog man di ma fa baax. ndax heure bu ñëwoon foofu noonu ndax. bu ñëwee rek mën na ma yóbbaale ko loolu la loolu lay bañ quoi ndax mënul jàkkaaroog man moo tax bañ ma ko taagee am naa lu ma metti trop trop trop sax. muy sa maam yar la bëggoon la lool sa waajur. génn bëggoon ma lool. namu ma dara àdduna. ndeysaan waaw ndax lépp lépp lu góor di am am naa ko. waaw ndax man dama doon sama réew moo doon fayatin ba dimbali ko. teral ko ndax defal na ma lépp ci àdduna. gañalu ma dara ndax sama papa gaañu na sama yaay gaañu na moom rek laa dese ci àdduna moom rek moo may dimbali moom rek moom laay gis kon loolu man looloo ma doon dugal ci yenn yenn bagage yooyu sax doon xale am doole doon góor yàlla ba ragalu ma dara ci àdduna waaw. nga bëggoon ko defar surprise te ñëpp xale rek waaw loolu métti na loolu waaye kut rek mhm. kut rek ma bëggoon dimbali ko. Mhm. Mhm. waaye suñu borom moo na moon il faut mu dugg kaso xam lu bëri ci àdduna ko waaw ñu ngi lay masawu Ismaïla di la gërëm bu baax a baax ci intervention bi nga def ci émission bi xam naa incha allah tey suba daañ ko yaatal ci beneen interview bu euh, gën yaatu maa ngi lay gërëm bu baax a baax équipe bu Feeling Dakar yëpp a ngi lay gërëm Ismaïla waaw di la delloo ziar di la jox sa wàcc waaye bu la neexoon doo def loolu waaye message bu may laaj nag hmm. mooy suñu président ba nga xam ne moom avant muy jot réew mi gars yi nekk campagnat heure buñ ko xot xottalee ñëpp a doon génn si kaso bi ba gar yi foog na gars yi dañuy évadé kon boobu moom nag gestuwaat Mhm. mooy longu longu jelmaan yu nekk si biir kaso nga xam ne ñi nga xam ne def nañ fa vingt a ñi def fa a ans ñi def fa a huit ans mu dimbali leen nga xam ne amuñu appel lañ defoon cour seen kii réer na ñu may leen temps te yàlla tax quoi jërëjëf jërëjëf ah, Faye maa ngi lay jox sa wàccuwaay merci beaucoup jërëjëfati alors merci mi ngi noonu ah, Ismaïla Sow ex détenu bu